dañ ci ànd ak euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf noor bu si njàgga ca Casamance tàng jër la def ci diggante soldats yi Sénégal yi ak FPMFDC yi. ubbi l'observateur ba démb ci alxames ji rek journal bi nee nañu gaañe fetelante lañ fa yendoo ba l'armée bi faat ci fipp ya lim bu takkoo takko donte sax l'armée bi ñàkk na ca benn soldaar amit yeneen juróomi jàmbaar yu ci jëlee gaañu-gaañu fippi MFDC yi seen ñaari base yi ëppoon doole l'observateur nee nañu soldaar yi Sénégal yi nangu nañu ko lëkkut nee nañu fi ñu nekk ni kay Salif Sadio ak i ñooñam jommi jomeet la ñu def juróomi fan ginnaaw opération de sécurisation ak opération de démantèlement yi base yi rebelle yi amoon ca nord bu la l'armée bi teg loxo soldaar le témoin mi ngi laaj ndax du aso bu mujj ci kaw waa ji di Salif Sadio njiital fi PMFDC yi ne taxawaay ak dogoog njàmbaar gi jàmbaar yi nekkee ca Casamance fan yi di fa wane doole ju mat sëkk ndax du laafi Salif Sadio yi ñuy bëgg a damm Sud Quotidien nañu am na benn soldaarub Sénégal bu fa daanu waaye njiital fi pii di Salif Sadio li mu ci ñàkk ci élément kenn xamul nu ñu toll fi ñu toll ni ñu toll ci jaaxle gu ak boobu tëju ràpp Vox Populi nee nañu ñoo di wa ci Rufisque juróom-ñetti mool ay nappkat ñoo réer seeni mbokk depuis le 2 mars fi jóge woon tàkk dem géej booba ba tey seeni mbokk déggatuñu ci ñoom dara xamuñu fan la leen jant bi di tiim ñu bari ci mbokk yi nee nañu leen rek leen dese jamono ji moo di di julli di ñaan tey dunde yaakaar ne dinañu dellu si ñu jóge Tëngéej te wax ci Pikine yëral xët mu njëkk la Sénégal lu jëm ci wàllu aménagement ak bu banlieue bu Ndakaaru Macky Sall lancé na ab plan spécial ngir diwaanu Pikine te taxaw na ci tem firnde li laas nañu moo di ca doon def démb ci njiital ministre Omar Gueye ca digg CRD ba le président Macky Sall woowee téléphone ministre Omar ngir bëgg a xam fan la yëf yu toll Malick Gaye directeur général bu AGETIP la nee nañu leeral na fa instruction yu président Macky joxe jëm ci liggéey marché syndicat ca Pikine nee na président bëgg nañu tàmbali travaux yi fukki fan juróom ci weeru avril mu di marché bu ñuy liggéey ci ñetti hectare ak genn boo xam ne dafay ànd ak lépp lu marché bu baax te moderne war a am direct ci news ne ñu njiital AGETIP El Hadji Malick Gaye ci li président Macky santaane mu di 15 njiit réew mi bëgg ca Pikine agétib sànjaafu na ko ñu sànjaafu ji politique bi ak l'observateur mi ñu xëy xibaar ne ginnaaw parti bii di PCS jéngo bu Boubacar Camara waa MCSS Fulla ak Fayda génn nañu ci coalition Yewwi Askan Wi musicien bii di Idrissa Diop doon it vice président bu parti MCSS Fulla ak Fayda nee nañu dañoo seetlu ay njuuj njaaj ak ay magu yu dallu seenum xel ci biir coalition Yewwi Askan Wi moo tax ñu buub seeni kaake dem seen yoon yoon a carte gi ba mu jaxasoo Tribune ko ginnaaw waa gëm sa bopp ak waa yeewi askan wi taxaw ne duñu laal parrainage ci élection législative yi Abdoulaye Wade ak i ñooñam ñoom it mu di waa wàllu Sénégal nañu parrainage du fi am parrainage gi waral coow leeg mbambuli journal l'info nee nañu bu dee am na ci ku mu baax a kës néew moo di Macky Sall ne au moins mën na koo xiitali ba ay liste parallèle du am ci waa këram yi kenn ci waa këram yi moo Macky Sall di Zahra Iyane yéenekaay bi nañu doomam ju jigéen lañ doon génte mu bëgg koo làngal yebbil ko tax mu dem triyande ñaari moroomi jigéenam ay tissus de valeur yu toll ci ñaari millions seen savon yi di